soxna ana laaj bi ma lay jëk laaj modi di dem ngeen nemmeeku seen borom kër ci yeen anam ngeen ko fekk asalaamaaleykum bismillahi rahmani rahim euh, di jiital nuyo bi ci kilifa diine yépp di nuyu sénégalais yi les sénégalais d'ici et d'ailleurs ñing leen di nuyu di leen jaajeufal ci lépp di nuyu les sympathisants di nuyu les militants ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp senegal yëpp ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi jaale tamit senegal yëpp li mënta xew yëpp ñu ngi ak euh, les décès ak yooyu noonu yëpp ñu ngi leen di jaale bu baax a baax. ñi nga xam ne nekk tey jàpp nañ leen si ñu ngi leen di ñaanal euh, sunu borom delloo leen seen kër yi maa ngi koy ñaan ci barke safar bi nga xam ne nekk tey la commencé donc euh, bu ñu jógee ci li yàlla li siy topp yàlla na nekk mbékk yàlla na nekk mbég mom rek lay ñaan ci barke borom Touba. donc euh, Pape tay dem nañ séti Ousmane li Xadi wax rek lay yegali dem nañ séti Ousmane donc euh, niñ ko gisee neexul honnêtement très honnêtement neexul les gens nous connaissent très fortes muy man muy mom bu problème amé nit bu ñëwé ci kër gi daf ñuy naan yéen de amoo leen ndoxu bëtt do len joy mais cette fois-ci le problème nous a secoué Ouais. ça nous a secoué bu dé mhm. deug rek ngeen bëgg dégg metti na et ça nous a vraiment touché ming ko commencé depuis le premier jour moi je peux dire que je suis témoin je suis hôpital bi hôpital bi fait arrestation donc dañuy arrestation justement c'est ci arrestation parce que avez vu une vidéo boo doon une di xaaju lan moo xew arrestation bi. dama nakar dama des fois nga def un acte ñu ne la un yow lañuy tudd yow lañuy ñuy yóbbu yow lañuy ñuy kii waaye nag xol-xol la et am na loo xam ne nekk il faut mu génn si je dis que je suis témoin dama xëy le matin c'était un vendredi mu tombeek jour férié ma dem bureau pare dili sama yaay yóbbu ko ci benn xaritam bu feebar fi ñu toog di waxtaan ma jékki-jékki ne ko maman man maa ngi dem mu ne ma doo toog ma ne ko déet bàyyi dama am bi may ñëw ñu ngi pare euh, julli daanaka ci jumaa ji ma yegg si ba ci rond-point boulangerie bi ci BRT bi ma gis oto yi ma gis na force de l'ordre ñuy dugg ci BRT bi ci biir suma fit ne rëf ma ne lu xew ba bi may jàdd ci koñ bi maa ngi yëndu di xool naan est-ce que barricade waatuñu parce que nag barricade bi dafa am beneen boo xam ne dimension boo xam ne daf ñu fa yóbbu c'était très lourd. dañ ci dellu si waat continuer. bi ñu duggee bi may duggee di gaare dama gaare jàkkaarlu ko ma gis ndaw si di wax ba yëkk loxo bi. ndaw si yoroon portable. waaw ma gis ko mu wax ba yëkkati loxo bi ma wàcc. ci oto bi bi ma wàccee rek dama jubal ci Ousmane mu ne ma ana dellul ma ne ko déedéet Ousmane lan la mu ne ma dellul dañ ma doon jéem a filmer mais c'est bon c'est mu amoon beneen waay bu nekk ci ginnaaw Ousmane bu soloon yére bu rouge bëggoon jot ci Ousmane pour jël téléphone bi donc garde yi di ko ko empêché ma mer man bi may wax xaw ma sax kan laa waxal. Ce que wax je ne le gars teint noir la rouge sol Je ko bi ko Je ay frères xanaa amoo pas sœurs pourquoi cet acharnement sur sur cette personne sëñ bi lan la Ousmane def sëñ bi yërëm ñu bi la Ousmane di dugg ci biir ma je Ousmane garde yi ne ma duggal ma ne leen du ma dugg bi mu duggee ma ñëw fekk ko fii mu toog mu ngi toog ak ñaar ñetti xaritam ma ne ko Ousmane mu ne ma am ma ne ko dama la yërëm parce que je ne comprends pas méchanceté bi nit ñi am ci yow pourquoi cet acharnement sur sur ta personne euh, mu ne ma waay yéegal ma daal di yéeg bi ma yëgee ma tëdd balaa may tëdd sax yéeg naa ci kaw.

ñun jigéen ñi dañuy xuloo rek Ousmane booy ak moom day génn wala mu noppi naan la waa baax na suñu ay doom seen papa la ñu gën a jege ñun ñooy yar Ousmane du yar donc du coup loolu yëpp dama xalaat pourquoi pourquoi ñuy def lii sur cette personne alors que cette personne ne mérite pas ça gëm naa yàlla de xam naa nekk ndogalu suñu borom dafa am te suñu borom bu lu bëggee il t'éprouve hmm mais amna lenn dafa metti ma teud dina law bi ma euh, Il était 15 heures 16 heures sama jank bi tata ngi jël Je jël ci mambay mané ban mambay lu def ma mambay lañu la jël ko lu quand il a dit ça xamna nek mom je suis li xew mais man Ousmane la jël ma fenêtre bi ma gis sama xol fess torop mo wiri dem taxaw ci balcon bi bi ma taxawee ci balcon bi di len xol ñom ñi ngi sone gendarme ñi ñu ngi sone won nañ euh ils étaient tous là ils étaient tous là bi may yëndu ñi ngi may gis donc ñom ñi ngi kay waxante ci seen biir mais man fi ma taxaw ma nga fa taxaw parce que amna fenn fo xamné bo boo fa tolloo ci injustice da ngay nane na nañ ma na dem rek ben yoon instant bo fouf la tollone parce que j'étais à bout parce que mënuma won gëm comprendre injustice bi man injustice dama ko mës a sama aduna ba à l'école on m'appelait l'avocate des élèves Pape noonu Ousmane Yek. man na dem xolat sama néeg bi di xol na gendarme yaangi fa ma gis leen ñu yore seen euh, euh, pour pour quand ils ont essayé la porte ils n'ont pas réussi ils ont sauté Ils ont ngi taxaw sama jours lu est-ce que nous sommes ñooy Si nous sommes forcé si nous sommes dañu si nous sommes dañu nous sommes bi man bi may que fekk na Ousmane ñu ngi koy et ça m'a fait beaucoup mal ça m'a fait beaucoup mal comme ñun ñëpp d'ailleurs dans la maison bu ñuy top di waxtaan ba si yag dañuy naan que la maison est vide sans Ousmane la maison est vide sans Ousmane ñu gàddu Nous Sébikotane ñun jotuñu koo jël Sébikotane tribunal d'abord yóbbu ko tribunal bañ ko yóbbee tribunal ñun jot ñuko gis. Hmm, gis wa ñun tonton ji bi dem parce que comme euh, Ousmane mom dafa yar njabotam ci politique. politique Sénégal bu ci njabot bi duggé ñu né mom de famille bi daf ci duggu bu ci njabot bi duggul ñu né mom de mi ngi génn di xeexloo doomu jambour yi té njabotam ngi tok lolu motax sax ñun. ñu yéex a génn di wax mais tey nag bu ñu demee ba wax dañu sës bi mu demee tribunal mook ñoom tonton ji bi moo fa nekkoon tonton ji bi mooy suñu kilifa comme toujours moom mooy dem moom mooy ñëw ba keroog ñuy yóbbu Ousmane Sibikotaan bi ñu yóbbee Ousmane Sibikotaan même chose ñun jot ñu ko fa dem seeti. dañ leen ko tere woon wala lu tax. Euh, dañu doon xaar déjà permis yi dañu doon xaar pour mu parce que ñun dañu naroon dañu nekkoon di ut permis spécial. Mhm. parce que permis ñu c'était uniquement les mardis et les vendredis donc ñun le temps que ñu ñuy lijjanti loolu Ousmane def na malaise Sébikotane ñu gàdd ko yóbbu ko principal bi muy dem principal il a fait un ben, euh, malaise avec hypoglycémie à 0,58. 0,58 toi. hypoglycémie pas. xam nañ ko. Sucre mo parce que bon grève de la faim. Bon grève de la faim. waaw. hypo kon kon boo euh, ministre de la justice plus président Ismaël Major Fall mu musul grève de la faim comment se fait-il que musul grève de la faim de hypoglycémie ben koy évacuer. Pape lu ñu mën a tontu ci loolu rek mooy Ousmane gor la te gor gu nekk kàddoom la am. Hmm. te du wax dara luy teggee ko def naa nekk looloo koy lor sax ci lu bari Ousmane quand it te dit c'est bleu c'est bleu hmm. ñun de bi mu fa duggee ba tey ah defe naa du man du xadi de amul kenn koo xam ne ne jot na ko fee toggal amul kenn koo xam ne ne ko jox jot na koo jox mu lekk. Hmm. et tout le monde sait que Ousmane du lekk fenn fu dul këram Ousmane du lekk fenn fu dul këram Ousmane du dem restaurant Ousmane boo ko invité sax pour mu lekk problème la les rares fois où muy dem fenn di lekk kooku da ko ne rek woo sa jabar comme ça mu woote bu wootee ma ne ko ayte waa jox nañ la autorisation Ousmane lekkul. Mm-hmm. lekkul euh, donc xëy na tey looloo indi tey fii ñu nekk nga xamné nek nekk. mais soxna Anna dama bëgg nga wax sénégalais yi wax nañ ko yeen yeen a ngi koy gis fi nga xam modi hôpital nan la mel comment il se porte parce que mi ci 20 jours mi ci réanimation dund naa grève de la faim xamna conséquences yi xam naa bi nan la Ousmane mel fi nek ni nii jamono yi la situation est critique quand je suis sortie là-bas le mardi quand je l'ai vu dañ dugg ci bi ma ne tonton Djibi Ousmane de Amadou mon fils qui a 10 ans 13, tout, Je ne ko à la euh, c'est très difficile c'est très difficile et je reviens encore sur le mot gorla ». li si gën a métti mooy nga nekk ci hôpital te nekkoo si jàmm c'est très difficile. maanaam. ñun keroog bañ fa demee rek pour seet Ousmane on est resté pendant une heure de temps premier jour bi ñu ne parce que il faut qu'on attende des instructions ak yooyu noonu donc. Euh, dégg naa léegi dafa am scanner rek lu ne pour nga gis Ousmane c'est difficile. Ouais, deuxième fois bi bi ñu ñëwee bàyyi nañ ñu ñu jàll dañoo ñëw ñu ne waa c'est bon pour vous waaye ba ñu ñëwee ba foofu dañu tekk ay scanner ñu dugal suñu saak yi ñu contrôler ñu contrôler ñu ñu nangu bi ñu ñëwee à notre grande surprise euh, néeg bañ ko dugaloon ñu génne ko ko dugal ko beneen néeg hmm. ma ne ko lu xew lu tax ñu changer la nekk mu ne non fii baax na ko mais filé il y avait beaucoup plus de commodité nan mo tax ñu indi la fii mu fi baxna bi ngay ñew tu étais à 0,58 fan se sa suukar toll avant-hier j'étais à 0,46 c'était le mardi. hypoglycémie mhm. sévère. mu toogaat mu ne ma mais la mi ngi touti. je suis à 0,57. Maniko, ko d'accord c'est bon baax on est parti heure buñ fay guen nak on part avec le cœur très lourd très lourd ba tay lañ fa xeyat delu réanimation ñun ci réseaux sociaux yi lañ ko yëgee. waxuñu leen ko yeen famille. kenn waxuñu ñu ko kenn waxuñu ko ci réseaux sociaux yi lañ ko yégué kon guddi yi mi ngi réanimation. mi ngi réanimation bi ma réanimation man dama ko laaj ne la ma non dañ bëgg ma ma pavillon ba pour ñu indi ma réanimation pour ñu interner ma ma ne leen suba le temps que may réfléchir mu d'accord ñu ne d'accord c'est bon boobu ñoom dañu taxawoon ci tank yóbbu ko euh, réanimation guéné ko pavillon bi mu nekkoon pavillon Teranga. Mhm. chaque minute ñi ci di jaabante ñi ci di jaabante ñi ci di jaabante ñi ci di dem di ñew mujju bi mu ne leen sama bopp day metti may leen ma ba suba. demain le matin inshallah dina xey ma dem et je vais accepter les soins parce que dafa arrêté won soins yi carrément ñu ne ko d'accord malheureusement à 2h du matin mu def malaise bi mu malaise à 2 heures du matin heure bobu lañ ko gaddu yobou ko. réanimation yobou ko réanimation. ba ni may yow lal biñ ko pour yobu won ko réanimation lañ donc euh, on n'a même pas les mots en fait cette affaire nous dépasse cette affaire, cette affaire nous dépasse. Et aujourd'hui... Sa vie était elle en danger Parce que je ah. des insuffisance rénale. Est-ce que y a un médecin pour vous parler de Papa, on a communiqué avec euh, le médecin, son médecin traitant, toujours, docteur Sissé. Euh, Mais nous sommes euh, à l'hôpital médecin bi nek réanimation euh, Ousmane il avait commencé à faire une insuffisance rénale donc les résultat yi génnee rein yi ont commencé à di corriger wu mais hypoglycémie bi moko sonal mais actuellement à l'heure que je vous parle il me dit que côté gauche il commence à ne plus le sentir. Hmm. nee na ma sama côté gauche bi day mel ni amul benn mouvement du ma ko du ma ko yëg quand il dit ça dama ko dama ko ne bon bàyyi loolu léegi léegi léegi mu jàll juste pour ne pas wan ko ne que am nañ tiit mais si tit nañu Tit nañu et sa situation est alarmante sa situation est alarmante sur ce, euh, Monsieur le Président de la République Macky Sall je vous lance cet appel solennel Monsieur le Président euh, ñaan nañ bayi nga Ousmane Sonko mu ñëw ci njabootam yalla, nañ la yàlla nga bàyyi Ousmane mu ñëw ñun ñu faj ko ndax fee mu nele ñun amuñu du tamit pour tous les détenus aujourd'hui on est à 1020 détenus 1020 détenus Cher Bara mi ngi ci côté Ousmane hmm. Hannibal mi ngi côté Ousmane Maimouna Jay. Maimouna c'est une maman est là. et tout le monde sait que Maimouna elle est malade depuis des années donc ñi nous ñaan ñu dimbali ñu ci ñi ñaan ñu dimbali ci et pas bu may ñaan je vais demander ça à la première dame je m'adresse à elle dama koy ñaan euh, moy nday ji rew koy ñaan ku jur ku jur hmm. et actuellement les xalé yi dans les prisons métti les Khalid vivent dans les prisons metina. et comme on dit il n'y a jamais eu de révolution sans évolution xale yi bëgguñu dara xale justice la justice. un Sénégal meilleur Sénégal bo xamné nek ci développement lay dem Lolu kessé lañuy ñaan donc je demande à la première dame en tant que jigéen en tant que maman en tant que yaay en tant que ndey mu jappalé xalé yi ñu génn na xalé yi génn borom kër yi nekk foofu nañu génn seen njaboot soxla nañu jigéen yi ñu jàpp notre très cher maman Amidia ak ñeneen ak ñeneen nañu génnee ñëpp donc ça c'est un appel de paix un appel de paix Sénégal dañu bëgg jàmm ci réew mi ak foo mënti nekk parti boo mënti bokk parti boo mënti bokk qu'on arrête la violence ak parti de mon ci Nous bu ciow amé sax nañu def des débats d'idées Qui ne sama leader la leader la on veut retrouver le Sénégal d'avant parce que actuellement qu'on le dise ou pas les cœurs sont lourds hmm. qu'on le dise ou pas les gens sont tristes donc nous ngi ñaan na borom mais bëgg naa ñu dellu si waat un peu sur cinquante six jours ñu leen barricade soxna Xadi mooy wax wala yaay wax cinquante six jours ana joxal ma soxna Xadi